jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci seen site 28 pro yéen ñu topp fii nga xam ne moom mooy Alieu ci màggal ak euh, Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacke Falilou ñu ngi ba tey ci kër sëñ Khadim Gueye euh, ginnaaw nag bi ñu defee moom wenn waxtaan bi yaatu yebal na ñu ñëw fii nga xam ne moom mooy waañ bi waañ bi nag ñu ngi fi fekk soxna yi macha allah ci bernde ñu ngi koy toppatoo soxnaam nag mi ngi taxaw ni euh, soxna Soda Badiane tey ñiy fàttaliku Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacke Falilou sëñ Khadim nekk kenn ci moom doom sax ci moom euh, tey bés bi laataa ngeen ci ñëw ba yegg si fi nga xam moom mooy Aliya noo dindee bés bi tey yow mi nekk ci waañ <laughs> xanaa sonn mais coono bànneex donc euh, di daw boobu ba léegi sëñ Xaadim moom ku ne xam na kook alaaji alaaji lay moo mooy léppam moom dafa bëgg alaaji donc euh, ñu ñuy def boobu ba léegi rek pour bés bi yemb yàlla yeggal nañu ci ak jàmm nit yi ñëw nañu macha allah Euh, wane nañ daal ne moom mooy doomu alaaji mm-hmm. donc moom it taxawee na ko dalal nañ gan yi jox nañ leen ñu lekk jox nañ leen ñu naan macha allah pareegul ñu ngi ci benn yi daal. Mm-hmm. ma ànd ko sama sama mbokk yi sama mag yi sama xarit yi sama. am di jàmm mi mënu maa wax. dëgg la Xaadim euh, wax nañu benn benn souvenir bu dul fàtte ci moom yow peut-être am na beneen souvenir boo xam ne nii gis nga ko ak Xaadim wala nga dund ko ak Cheikh Mohamed Lamine Bara. waaw man nag ak Cheikh Mohamed Lamine Bara euh, yal na yàlla yokk ay leeram yàlla oyofal suuf ci kawam taas ñu ci barkeem bu bëree bëri euh, jotuma koo xam nag xameewu ma ko ci Xaadim bi may xamanteeg Xaadim fekk na mu làqoo. waaw waaye nag ñaanaloon na ma xam naa nag moo ma ñaanaloon dencal ma xaadim moo tax xaadim jot ci man. mu ngi noonu. merci. merci à vous. Euh, euh, euh, bi naka la. man koot Mbaye laa tudd. mbay mbay ah, nga sant de. moo tax booba léegi yaa ngi dem de. booba léegi daal macha allah laaw la cat. màggal gi tubaar fakal la macha ba ñëwee démb ba léegi. ñoo ngi lekk ñoo ngi naan. Sooda Badiane mii nag nday sama xarit di ami d'enfance ba ñuy nekk xale dañuy ànd nekk xale di ànd ba yàlla dogal kenn ku nekk nga am sa borom ko daal di waaye macha allah di bàyyi faalu jëkkëram nag bëgg xaadim géy ba bëgg lu takk ci xaadim géy takk ndiggam lii rek nag barke yonent bi di ci jaamu yàlla te yàlla rek tax koy ñaan yàlla yal na ko suñ baara fay lépp lu ñuy lu muy wut ci ëttu Guéyeen bi yàlla bu ko ci benn jéeg ëppale barke yonent bi teen bi sallallahu alayhi wasallam macha allah. merci yow soxna laa tudd. waaw di mag ci Soda Badiane. macha allah lépp doy na waaw madame Diallo waaw. macha allah di leen ñaanal rek nag wér gu yaram gudd fan. barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam dara manqué wul xaadim yëpp mat na. merci yow. man Ngéeme Jong laa tudd. koo man Kaolack laa jógee. naka waa Kaolack. ñu ngi si jàmm bu baax a baax a baax. bis bi kontaan rek am contentement bu baax a baax a baax ndax bis bi dafa rëy ci borom kër gi muy sëñ xaadim alaaji baara euh, bu euh, bis bi ñëwee nii la koy bernelee te suba ba léegi ñu ngi ci berne yi ndekki lañ njëkkee ñu ngi ci añ ñi ñu ngi waajal ci reer bi soxna soodaam nag yàqu ci dara liñ naan ko yow yaay yaay faalu xaadim gay yaatale mi ngi ci waañ bi du tala sol yére nit ñi lekk leen naan leen toppatoo gan yi dañ leen di ñaanal daal yàlla na leen cat seexlu liñ man ren yàlla nañ ko mën déwén yàlla nañ bokk bokk ci milliardaire Serigne Touba yi ci barke sañ Fallou waaw. merci Ami Fall laa tudd. Kaolack laa ndax soo de Kaolack. waaw ndax soo de waa Kaolack la la. ah sant rek sant di ñaanal Alaaji Baara yàlla na xippee ji àjjana kenn xàmmewut ay taalibeem ak ay doomam di nit ku baax nit ku bëgg mbokk nit ku am njariñ ci ay taalibeem ak ay doomam ñu ngi ñaanal Alaaji Baara di ñaana sëñ Xaadim Géey lu mën ren yàlla na ko mën déwén ci bàkk sëñ Muntaxa Basiru mbég mbég rek <laughs> Fatou Seck. Fatou Seck Kaolack. Thiès. Ah, ah, ah, waaw. dafa ala doome dafa am Thiès dangeen daj ci waa Kaolack yi waaye dafa am Thiès am Kaolack. waaw am Kaolack. ñu dund bis bi nag. yaa di ñaan yàlla yàlla nañ ko yàgg a dund. di ñaan euh, sa soxna Soda Badiane di ko ñaanal yàlla na ko yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko borom këram. ba lu mu mën ren bu ne yàlla na mën la ko toog ndaxte ñun yokkute rek la ndax daaw ñëw nañ fi daaw. nag ni si daaw ba ñu fekk si waat ren kon lañuy ñaan yàlla na sax te la la nu gisaat ren tamit yokkute rek lañ ci gis ñu koy ñaanal yàlla na ko ko borom këram yàlla man bu ma ko amee na fi jaaña ma ko may ak sama doom ji Jamila Kane ñoo ma bu indi fii utti gan yi nag yomb na waaye ku la dalal ma ko moom moo jafe waaye ku wàcc fa nga jëm fa nga jëm fa sa jàmm ne fa ngay jublu te soxna Badiane Soxna Badiane indi ñëpp nag moo boole ñëpp moo boole ñëpp moo boole ñëpp koñ bi quartier ba allié gi daal mi ngi nii biig ba tey suñu yàkkee lu village bi li ko wër entourage bi yëpp moo leen moo leen jox ndékki jox leen reer bi yendoo añ ak ñoom te dinañ reer bu soobee yàlla. merci alors ba tey euh, sëñ bi euh, ñu ànd ak euh, ba tey rek mbokk yi ci li nga xam ne moom mooy waañ bi. Euh, fii nga xam ne donc euh, fii la ñu nekk nii ba tey ci cours bi euh, ñu ngi jëm tamit nag ci ji bës mais yow tamit du ñàkk tamit maanaam nga wax ci ni nga xam ne moom nga fekkee fii nga xam ne moom mooy Alieu. waaw di sant yàlla rek di julli ci yonent bi di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool ci suñu kanam di ñaanal sëriñ Amdi Modou Mbenda Fall waaye nag di ñaanal sëriñ Abo Baraka moom Cheikh Modou Fadal ak njabootu sëriñ Fallu gépp ndax buñ ne weeru rajab rek xel yëpp dem Cheikh Modou Fadal waaye nag di beral nuyoo di beral ñaan Serigne Moustapha moom Cheikh Amadou Lamine Baara di ko ñaanal mu yàgg fi lool ak njabootu Cheikh Amadou Lamine Baara gépp waaye nag di beral ñaan kenn ci njabootu Cheikh Amadou Lamine Baara su ma ko waxee rek Cheikh Amadou Lamine Baara da am doomi xol am doomi deret muy Serigne Khadim géey moom ci doomi xol alaaji Baara yi la bokk ndax li mu am lépp Cheikh Amadou Lamine Baara la benn bët la am sëñ Baara rek la koy xool Khadim ci yar bi ci teggin gi ci taalibe gi ci murte gi ci tabe gi ci xaalim rek laa ko gis waaye Cheikh Modou Lamine dana ko yow sama doom nga sama doomi xol nga am naa doomi deret waaye sama doomi xol nga Cheikh Modou Lamine nag moo doon Cheikh Modou Lamine moom Cheikh Modou Fadel nekk na xalifu Cheikh Modou Fadel waaye nekk xalifu Sëñ Tuubaa doomu Sëñ Bamba yi bu ñu jeexee ki ko njëkk a wuutu muy Cheikh Modou Lamine Bara loolu nag maam Cheikh Rafa ko waxoon de ca Xuru Mbàkke danoon Sëñ Fàllu mm, li nga ma defal ndax Cheikh Ibrahima daa yoroon lël dong yi ay junniy junni dong dong yi di faatu maam Serap Fall jékk benn bis daan na ah xool leen buntu dëkk bi de xet ak sëñ Bamba may xeeñ mag ñi dem xool gisuñu dara mu ne ah dellu leen ñu dellu xool gisuñu ñu dellu mu ne leen ah dellu leen ba muy ñett yoon ñu gis fasu naaru góor ñu ne ko ah gis fasu naaru góor ci buntu mu ne daw leen sëñ Bamba ñu daw gàttandu ko mu jël ab këll dëpp ci tànk bi Cheikh Modou Fadal wàccee mu dugg ci biir mu ne ko waaye Cheikh Modou Fadal li nga def nii da ngaa gore rek mu ne ko sama bàyyi Cheikh damaa dégg wopp dong yi mu métti ma ñëw waaye fii lay yem Cheikh Modou Fa euh, maam Cheikh Fall ne ko ah Cheikh Modou Fadal ah gore nga de waaye a gore bu soo doomu sëñ Bamba yi jeexee kii njëkk a wuutu ci maamam bu doomi sëñ bamba yi jeexee danaa jël sa doom teg te kenn du ko faj doomu sëñ bamba yi bi ñu jeexee bu ñu fi nekkatut ci kaw suuf dana ko su ma fi nekkatut sëñ bamba nekku fi doomu sëñ bamba nekku fi ku koy njëkk a wuutu ci lal bi sa doom lay doon yaa koy jur loolaa lay neexale muy Cheikh Amadou Baara ba mu fi jógee nag kii yi nga xam ne tey lañ nekk këram muy Serigne Baara Serigne Serigne Khadim Gueye ñu ngi koy ñaanal mu gudd fan te waaye nag di beral nuyoo soxnaam ci waañu nga jóge léegi ndax góor bu baaxee rek jigéen nga ci wet ga soxna Soda Badiane ku baax la kenn xifut kenn marut xaadim nag ñun lu ñu booleeg moom ak taalibe rek ndax ñun Ndakaaru lañ féete ma féete Masaalikul Jinaan ci liggéey sëñ Bamba ba di profité di nuyu alxaaji mbàkk yu fay bu baax a baax moom diggante ma xaadim Gueye samedi ak dimanche rek ndax kilifaam la magam la waajuram la sëriñ mbàkk yu fay mi ngi dénk murid yëpp ci Ndakaaru di ko ñaanal mu gudd fan te ndax moom fee mu nekk Cheikh Mourline Baara ko fa tegoon muy Ndakaaru Cheikh Mourline Baara it moo ñëw teg xeer yi na yëkkati cent millions jox ñu daan ne liggéey liggéey leen jumaa ji dina àgg kon ñu koy ñaanal bu baax Serigne Mbacke Faye ak njabootam gépp ak waa Masaliku Jinaan gépp Serigne Khadim daal li ñu xam ci moom mooy murit la saadix la ku baax la ku gëm Cheikh Modou Lamine Bara la ndax suba la Kazu Rajab ñuy ñaanal Cheikh Modou Lamine Bara kon Cheikh Modou Lamine Bara mi ngi ci biir kër Serigne Fallou. mi ngi fi rajo bi bari fi xët-xët yi bari fi lépp lu ko waral mooy Khadim Gueye moo mel noonu ndax Khadim Gueye moo yaatu moo am yar moo am ay teggin ta sëñ Sir Mouta daan wax naan ku amul yar doo yor dara ku amul ay teggin doo tekki dara te sa sa sa Khadim Gueye El Hadj Bara noonu la mel boo ko fekkee Touba nii la mel boo ko fekkee Ndakaaru parkinam képp ku riir jóge Touba jóge fu nekk fa nga këram euh, parkinam ngay ñëw añee moom ngay ñëw xéwlu mu lay defal tranga di la yaatal di la dalal kon suñu Xaadim Géey moo toll noonu moom ngeen moo tax ngeen gis mbooloo mi bari fi lool bu ngeen gisee ñu mel nii maak moom nag day sama baay di sama lépp mu nit ku baax di nit ku am yar Xaadim ku mën a dimbalee ku mën a jox wàccuwaay nit ku am ay yar ku am ay teggin ku mën a dimbali doomu aadama Khadim Gueye alaaj El Hadj noonu la mel moo tax tey yàlla defal ko lii mu ko defal. Euh, diggante euh, seen Khadim Gueye ak El euh, Hadj Bara Mbacké Falilou bi ñoom ñaar yow am nga loo ci fekke ci ay maanaam souvenir yoo xam ne mën nga ñu koo fàttali. Ah, bëri na bëri na moom moom la sëñ bi waxoon na ko moom sama sama doomi xool nga sëñ bi da ko yëngatu woon ak xaayam dara. da ko def comme doom ñu jur suñ xam ne fàttewus dara di ba fi sëñ bi jógee ba tey am na ñeen ñu ko sëñ bi seqal gis gisatuñ leen mais moom moom dafay nuur a dee fi sëñ Baara jaral ko lu ne nag moo moo tax mu moo am lii moom tey jii waaw te ku def lu rëy rek am lu rëy te moo tax sëñ Xaadim yàlla ko fayal daal ndax li ma liggéeyal sëñ Baara ma wàcc kawam rek. mbokk yi seetaan ci seen euh, site 28 pro ñu ngi am mbégte ànd ak yéen euh, ci bokk euh, ki nga xam ne moom mooy Aliya ci bés bu ñuy fàttaliku Cheikh Mouhamed Lamine Baara Mbacke Falilou nekkoon juróom-benneelu xalifa bu Serigne Touba Khadim Rasoul tey nag ci alxamis bi xam ngeen ne njabootu sëñ Baara bi ñoom ñëpp ñoo fi daje fii ci Aliya waaye nag euh, ci taalibe yeeg ci mbokk yeeg wëllëre yi ñoom ñëpp ñëw nañ ñu ñëw nag ànd ak sëriñ Galas Amina mu ñëw fekk si euh, wëllëreem xaritam taalibeem sëriñam mën naa ne sax wala rakkam euh, nekk kenn ci Cheikh Mouhamed Lamine Baara muy sëriñ Xaadim Gueye mboolem taalibe yi tamit ak mbokk yëpp ñëw di fi ñëw di fi ziar gannaaw kàddu yi nga xam ne sëñ Galas yëkkati na ko am na lu mu ñu seedeel mu ne sëñ Baara moom moo doon wax ne yow doomi boppam nga li ñuy fàttali ci seen diggante yéen ñaar gannaaw bi nga nuyoo mbokk yi ñuy seetaan salaamaaleykum wa rahmatulah euh, maa ngi nuyu suñu mbokk taalibe yi ñu nuyu ñëpp rek euh, di sant yàlla bu baax di sant sëñ Touba di sant sëriñ Fallou di sant nag sama jàmbaar yi sëriñ Baara Fallilu nga xam ni lépp moom la lépp lépp lépp moom la lu ma am tey rek ginnaaw yàlla ak moom la mu jàppoon ma def ma doomam def ma xaritam. waaw yemalewu ma woon ak dara moo waral daal tey jii wax dëgg yàlla ñu toog di ko ko di ko ñaanal waaw sant rek. Euh, gis na ni tamit euh, peut-être am na fu ngeen euh, jaar ci loo xam ne ci ay souvenir yoodul fàtte ba mukk ndax mënuñ ci dikkal tuuti rek xam naa ne doo mën a lim yëpp sax waaye lenn ci li la gën a marqué. waaw li ma gën a marqué ci moom daal loo xam ne xañ na lu ñu mën a wax la loo xam ne ñëpp teg nañ seen bët mooy. Euh, bi nga xamante ni sama soxna amoon na doom mu ñëwoon di ma ko tuddul si keroog kontaan naa kontaan boo xamee ni maanaam mënoo ko nettali ndax dafa ñëw ànd ak waa këram yi ah, ànd ak njabootam yëpp ànd ak ay doomam ànd ak ay rakkam ñëpp ñëw toog ak man ba 5 heures. doog a ñibbi loolu lu rëy rëy ci man la loo xamee ni du ko fàtte mukk te bu yónnee woon rek mu day mais moom daa ñëwal boppam kon nag mooy woon ni rek moom yàgg na maa jàpp bu dara dawul dara waaw. kóllëre googu mu ngay li ba tey ci sa diggante ak ay doomam rawatina sëñ Galas mi nga xam mi ngi toog sa wet dafa tàmbalee ko ci sëñ Moustapha mi tey sëñ Baara. waaw kóllëre googu moo rëyoon trop ci man. ba tax na moom léegi moom lu tax lu tax ma ci gën di sawar rek mooy maanaam ñoom ñu heure bu leen gisee rek moom suma seen jëmm mais jëmm yi alaaji baara laay gis ñoom moo waral toujours rek heure bu leen gisee rek damay kontaan damay bëgg bu baax Mm, moo tax lu ma def rek xeeb ko waaw. li ngay dénk taalibe yi ñëw fi tamit di fàttaliku bés bi. waaw li may dénk sama mbokk taalibe daal mooy ñu góor góoru rek ku ci nekk rek foo mën a jokk nga xam ni liggéey rek moo am solo sëñ Tuubaa moom kenn mënu koo nax loo ko defar rek dana defal lu kawe sa njoor ku weddi danga may laaj. Hmm. waaw li may tàggoo daal mooy daal. Euh, ñi ngi sant ñëpp di sant euh, képp koo xam ni ñëw na aaliye rek yal yàlla faj sa aajo. ci moom. man mënu maa wax ci moom ndax moom doomi sëñ baara la maa moo yem sëñ baara rek xam naa ne xam naa moo moo moo président damay sàkku si ma ay ñaan ndax li muy jëbal sëñ baara euh, amu ci amu ci amu ci morom moom loolu moom ñëpp koo seddeel liñ ko ñaan rek mooy gudd fan rek lañ ko ñaanal moom liñ ko loolu loolu liñ ko ñaanal gudd fan rek ndax lépp sëñ baara defal na ko te da koo doyloo tamit mu xam kan mooy sëñ baara jàpp ko lijjantiwul dara lu dul sëñ baara kon nag ñu ngi gën sant si boobu moo tax ñu dagg suñu yëpp nekk ak moom fii dafa jërëjëf Seex Bamba ya ma tàndal ku la am dootu ñàkk bay taane jërëjëf Seex Bamba ni da yow la nu Bamba Bamba yaa jar di xëy di gontu ba dee yaa defal yàlla lépp lu santaane yaa jar di xëy di ko jode ab nga loolo lépp lu santaane Sëñ Bamba yaa defal lu mustafa la xaw si yatan noon yaa di xayrul xadimi fii di aane yaa defal mustafa la xosiyatan noon yaa di xayrul xadimi fii suñ bamba yow gërëm loo nga yàlla teg ci gërëm loo gën ji yonen walaahi yow yaay aane gërëm loo nga yàlla teg ci gërëm loo gën ji yonen bamba yow gërëm loo nga yàlla teg ci gërëm loo gën gi wallaahi yow yaay gërëm loo nga yàlla teg ci gërëm loo ci gërëm wallaahi yow yaay ni ko yàlla def gumun ba ci seen site 28 ñu ngi mbégte ànd ak yéen euh, ci xam ne moom mooy allié ci bés bi nga xam ne moom la ñu fàttaliku Cheikh Mouhamed Lamine Bara Serigne Saliou si euh, suba ba léegi ñu fi jaar ci ay kilifa bari nañ ñëpp danoo wërala teg sëñ xaadim mi ndax euh, sa waajur woon na mu ko téye woon ci ay seede sànq sëriñ Galas Amina am na lu mu wax ci moom yow tamit dafa mel ne desoo ci gannaaw ci ñëw wettili ko ci bés bi nga xam ne nii moom la ñuy euh, fàttaliku sa waajur ba jërëjëf sëñ Sidi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan 28 pro fii ci biir réew mi ak bitim réew waaye di jëli ci nuyoo bi nag ak ziar bi saahibul fadila Cheikh Mouhamadoul Mountakha ko jaare ci sunu buntu ci Cheikh Mouhamadoul si awal baraka waaye sunu kilifa sunu sëriñ Cheikh Amadou Moustapha moom Cheikh Amadou ak mboolem jullit yëpp maa ngi am mbégte bu baax nag ci teew gi ma teew fii du mën a sax kër xaadim gi kër sëñ Baara ndax moom mii toog bi muy ñëw ci sëñ Baara ba ni ba ni ñuy ñàkk gis sëñ Baara ci ay gët ci li ma war a xam ci seen diggante dara ump ma ci nañ dégg fi may waxee nag ci li ma war a xam ak fi sama dégg-dégg war a toll ndax xam naa ne lim seq ak sëñ Baara moom xaw ma lépp li tax ma kër sëñ Baara it yéen ñii mën ngeen ko firndeel soo fi rombee rek te xamoo ko ko moom da naan fii kër El Baara ndax ay nataalam nga doog a nag xool li ci biir am na foo xam ne fee ci France lam fa def defu ko fii sax ci Sénégal. fii bu mu yëm kenn la mu tuddee sëñ Baara nga xam ne mën naa ne maa ngi koy doog a gis këru France ñu bind turu ab sénégalais ne fii mooy kër diw. binduñ sax résidence de dañoo bind kër Serigne Baara Falilou nga xam ne boo rombee ci mbedd mi sax seen ko table bi rek lam ko defaree tabax na bâtiment Sénégal nga doog a nag wut autorisation. autorisation ngay wut xam nga France moom bokkut a fii waaw nga xam ne da cee bind kër Serigne Bara nga xam ne ñiy romb ci mbedd mi sax dañ koy dañ dañ koy teg bët kon kii ay code ay code wifi am sax Xaadim Bara Falilu la mot de passe am ak lépp Bara Falilu seede yàlla te loolu du tey diggante moom ak sëñ Bara nag nit ci ñëpp mën a waxee jàmbur yi sax mën nañ cee wax waaye olof dafa ne maa fekkee man dafa am lu ma fekkee sama diggante moom ak sëñ Baara ba pare sëñ Baara nag lu ci ëpp doxale woon ko sama diggante moom moom mii doon na ma ci seede sëñ bi su ko daan woo sax am na numéro ma yëpp mais may woo ma ñëw mun wool ma saawaay du jaar ci aw turam wool ma saawaay lay wax su mu rey na saawaay waaw mas naa toog xaadim mii am lu mu ko wax doom doomi sëñ bi toog na ko sëñ bi man nag mu ne ko man xaadim laa wax doomi sëñ bi moo wax na ko bàyyi man nag mu ne ko man xaadim laa wax mën naa cee wax ay junni junni junni junni junni junni bi muy jënd oto mu daw deux cent nangam mille kilomètres muy Dakar Touba mu jox ko Alaaji Baara boobu moo ko njëkk a def ci oto zéro kilomètre jox ko Alaaji Baara moom mii moo ko njëkk a def te du benn. bokk na ci yu ci mujj benn message email la dafa am ku ko indi ci ab bërëb am ku ko gis na bii de ci alaaji baar rek la baax demal jaay ko ko xaadim ñëw yër oto bi ci secret melut na ko gënal rakam di baax de yàlla na ko yàlla doolu yërmaane Cheikh Moudou Fadal ku sosoon ci moom mu jox ko lim bu takk jox ko billet mu dem Amérique jënd bu mel noonu gën koo bees te sëñ bi yëgul ci saayir de li may wax nii ay benn ay benn benn laay wax waaye kii fi mu jaar sëñ mënu ma ko xaju ci ab émission waaye ay benn benn laa ci wax rek te lu ci ne maa ko fekk bi kooku demee bi fàllu demee Amérique jënd oto bi de ñu indi ko dédouané ko ci turu señ bi ñu bind ci alxaaji Mouhamadou Lamine Mbacke mu woo ma ma dem Dakar moom xaadim mi mu am fu mu ko làq yóbbu ko sa këram daa am fu mu ko làq oto bi ma dem maak moom ñu ànd diggante 17 heures 18 heures nangam ñu ànd ma dawal wër nekk saa waay bii de moom tarkala nangam wax mu ma sëñ bi laa ko jëndal ndax ne ma dama bëgg nga jël kayit di dem Jurbel miiteel ma ko defal ma ci lépp ma doog ko jox sëñ bi ma miite oto bi DL 05 05 C man maa ko miite dagg assurance un mu jógee Dakar ñëw di ko indi sëñ bi sëñ bi xamagut ba léegi ci saayir bi mu ko indilee sëñ bi maag moom ak sëñ bi ñoo dugg oto bi di wër jumaa ji am ñu ne dana naxati sëñ bi rek jaayee ko oto bi man xam naa moom xam na waaye sëñ bi xamut ci saayir ba léegi ñi wax nag ne ah xaalim inditi na oto rek dana nax sëñ bi jaayate ko rek ñu dugg bi maag moom ñu wër jumaa ji sëñ bi ne ko xaadim saawaay sax la ko bii moom xaw ma loo defaay dama la koy delloo. lii moom bëgg naa ko xaadim def na ko léemul moto bi dama fàtte woon loolu xaadim def na ko nañ léemul ma ko ñu dugg mu léemu ko bi ci kër sëñ Fall ma taal balaa bi sëñ bi ne ko saawaay bii moom loo ci def rek ma delloo la ko bii moom du ñibbiwaat ma taal balaa dees bi kii bi génn ma jël kayit di mu jox mu jox sëñ bi ñu gis ñu bind ci El Hadj Mamadou Lamine Mbacke xanaa koo nar a jaay si oto doo ko miiti ju turam mu ne ko bii nag mu ne ko addee Sëñ Fallu billaahi la si laa ilaaha illaa oto bi jël ay bi ñu koy wecciku ci wecciku miraas rek liñ ko jaayee mën na vingt cinq millions ci wecciku miraas laax nag de yéen xam ngeen loolu ña waxoon ne ñëwati na nax sëñ bi bi fi oto bi fanaanee ñu gis kay turu sëñ bi na ci ñoo xam ne kii bi muy ñëw jaay tax koo jóg ndax man maa ko miite man xam naa waaye ñu si ñu damay wane rek booba sama diggante moom ak sëñ bi ndax man lu bari man ci moom ci man lay jaar lim jëflante ak sëñ bi lu baree baree bari moom mii mi ngi nii yàlla laa gën a ragal ci moom. du tax du toog du ma ko bëgg lu ko neex ba may xool loo xam ne bu wéete ne Saliou Mbacké ma wax dëgg sëñ bi lu bari ci sama loxo bi la koy jaarale ba bi fi sëñ bi jógee li soon seen diggante maa ci doy seede moom mii mi ngi mi ngi may dégg na lu mu seqoon ak sëñ bi ba sëñ bi jógee fi man nii maa maa nekkoon seede si ndax man ak moom rek ko xamoon ku ak sëñ sëñ bi dem na waaw su ma àndutoon nag moom ca lañ wax kon loolu du lijjanti moom xam na ko man xam naa ko mu jox sëñ bi oto bi sëñ bi ne ko ah ne ko mbàkk bi te man man histoire bi moom ma ko nettali moom te boobu waxu sëñ bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ne neexut a wax ñu bari nag dañoo jàppoon ne day utiliser sëñ bi waaye tey histoire jox na ko raison. musu ko yoreel ñaar dërëm au contraire bu ma ko sañee wax am na lu ñu seqoon moog sëñ bi sax bi mu demee la ca des moom xam nañu ci la ñu bari xamee ne xaadim dawut yoreel musu la yoreel bi sëñ bi nag bëggoon ko mbëggeel goo xam ne mu ne su ko nopp xam nga doomi sëñ Fallu xalifa sëñ Fallu ba xam naa murit fekk si la kooku alal caaxalu la xaadim mënu ko jox lu ko jox lu ko jomb mënu ko jox lu ko jaaxal parce que ku nekk 2000 xalifa sëñ Fallu 2007 nga nekk xalifa sëñ Touba kooku dara jaaxalul ci àdduna kon jàppeewul xaadim mi alal xaadim li mu def ginnaaw alaaji bara def ko ci kanamam barke sëñ Touba damay faral di wax na ñaar laa xam ci ñoo xam ne gis naa ñuy sàmm 1000 pour cent seen kóllëre ak alaaji baara muy moom mi ak sëñ Bass Abdou Khadir man xam naa ci dara ci ñoom ñaar ñi laa xamee ne kóllëre am na ba fi may wax yow nii li muy def ci euh, Alaaji Baara moo ëpp bi fi Alaaji Baara di nekk te fii ñu toog misaal la ci ak feneen ak feneen ak feneen ak feneen kon kii li ngeen gis rek yéen même mu ngeen mën a wax man lu bari dama ko fekk bu ma doon wax lim seq ak sëñ bi ci li ngeen war a yëg wallaahi asim xajut xajut sax ci guddi gi te yàlla rek tax may wax nag yaay gireere yaay gireere yaari baay mbeyan galanso fallu kum neexul ittibaahu xaqi sayxil murabbi mm-hmm. ansamu min xaqil waalid li anna seyxal murabbi yurabbi ar-ruuha wa yuraqi ilallaahi falaa budda lahu min duxuli janna nee na topp sëriñ bi ma topp sëriñ moo gën a màgg ci topp say waajur ñu ni ko lu tax mu ne li anna seyxal murabbi yurabbi ar-ruuha sëriñ bi ma topp sëriñ ruugi lay defar wa yuraqi ilallaahi mu yéegal ko ci yàlla nee na ruugoogee falaa budda lahu min duxuli janna faaw mu tàbbi ñu ne ko wal waalidu nag mu ne wal waalidu yurabbi al-jisma faqat doomu aadama maanaam waajur wi moom li ko ñor mooy doom ji bu waree jàng mu jàngal ko boo tilimee mu fóotal ko bu ay yërëm rappee mu wutal ko yëre bu matee jàng mu mat ko jàngal ko bu bu xiifee mu jox ko mu lekk imaam min doxule jànn xamu ci dara waa imaam min doxule naar xamu ci dara sëriñ bi matub sëriñ nag moo xam loolu te sëriñ bu matub sëriñ mooy Cheikh Mahamadou Mountakha kañ nañ tëkkuwaat jàppuwaat ci gannaawam te jàppale ko ba mission bii nga xam si ni mi ci bopp yoon wi sëriñ Tuubaa jox ko ko màggale ko na mu ko bëggee te nii bi doxee bu am na nit yàlla yoo xam am na foo xam fu suñu borom dañuy gedd te yërmande la ci ñun kon yàlla na ko yàlla jàppale te ñu dello soir suñuy xel te xam ne ay taalibe sëñ Tuubaa te li ñu boole kenn mënu ko li ñu li ñu boole kenn mënu koo tàqale te li ñu boole it mënuñu koo séddoo kon maa ngi sant ñëpp la dëkk ba iblis dikku woon tukki ba iblis tukki woon daani tëkku ba tëkku ba iblis tëkku woon ba sëñ Tuubaa jàkkaarloo waa jeewal ba sëñ Tuubaa jàkkaarloo waa jeewal ak tubaab yi ak tubaab yi iblis porox Iblis potoxlu. poroxlu poroxlu ñëw ñëw bëgg a yegg si sëñ Tuba bëgg a yegg si sëñ Tuba mu dóor ko ngadd mu dóor ko ngadd mu sori ko mu sori ko mu ne ko ma la dara ni ko mënulu ma la dara waaye si sët yi sa sët lu ma neex lu ma neex dinaa leen ko def loo yow bokkoo ci jërëjëf jërëjëf ay waay géy ñoro waaye yow sëñ bi sant na la bi sant na la sant na ndax lii dal xaadim mm-hmm. du xaadim yow yow mii yaag soxna si ah. tawat ju xaadim am ba laaji baara xëcc ko faj ko yaag ko ar mm-hmm. baay bu dee joxe ku sa yaay tàllalu doo am soxna si baax ne na lim yor ba jox ko xaadim yàq ko jox sëñ Bas nee na sëñ bi itam damaa jaaxal nee na sëñ bi da koo jaaxal ndax maamam ndax maamam baara Mbàkke sëñ baara rekk dey daana ñëw ci sama kër baay. nee na daana ñëw ci kër baayam. di wala rek moom. di wala renteeg moom. daana dem ba di ko dugguloo xalwa. daana dem ba di ko dugguloo xalwa. billaahi wallaahi billaahi wallaahi mooy jataay bii de. mu mel ni nag mu mel ni nag. loolee yaa ngi mel na loolee daa mel ni yow da koo xam. yal na la yàlla defal li nga bëgg. xaadim nag. nee na xaadim nag. dama koy wax ni ko. da koy wax ni ko. limu mu am. li mu am. wax naa ko démb nee ko. nee na ko démb. sa baay sa baay murid saadix la murid saadix la pas-pasam pas-pasam ak doxalinam aw doxalinam doxinu mag ña la doxinu mag ña la waajur wu baax nag waajur wu baax nag dafa am solo lool dafa am solo lool ci gone ci gone limam limam ci sëriñ Baara Fallilu ci sëriñ Baara Fallilu yow mi yàq ko liggéeyal yow mi yàq liggéeyal te loolu te loolu lu rëy la. lu rëy rëy la. ndax koo xam ni. koo xam ni. doon na sëñ Fallou. doon na sëñ Fallou. doon Serigne Touba. doon Serigne Touba. doon Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. doon Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. fab la fab ni la yaay sama doomi xol. ni la yaay sama doomi xol. loolu du ay loolu yaa ko liggéey loolu ndaw nee na yaa ko liggéey de. kon ma. sama ma sama baay day. nee na baayam day. daana wax ni. daana wax sama sët yi. sama sët yi. ak sëti sëñ yi. ak sëti sëñ Tuubaa yi. benn la ñu doon benn la ñuy doon. sëñ Fallou nag. sëñ Fallou moo ma ñaanaloon. moo ko ñaanaloon. ni nga da fi yàgg lool. ni ko di nga fi yàgg lool. te doo loo ñaan yàlla def loo loo ñaan sunu borom dina ko def. te danga barile. te di nga barile. maa ngi ci juróom fukki at. nee na mi ngi ci fukki at. ak ñet ak ñett. toll maa ngi jàng xasaay. nee na fu mu toll mi ngi jàng xasaay. ak alxuraan ak alxuraan. at mi ne. mi nag fi mu ne. danaa jàngal sëñ Tuubaa téeméeri kaamil. téeméeri kaamil. sëñ bi ñëw na fa. ñëw na ko jënd ak akubar. nee na at mu ne dina jàngal sëñ Tuubaa téeméeri kaamil. kii moom sëñ Basiru bi ñëw na fa ba tàyyi. ni la soppe ak ni ma mel ci yow. nee na ni mu la soppe ak ni mel ci yow. nee na mënu la loo wax da leneen yow de bokkoo ci ñooñu yow bokkoo ci ñooñu yow bokkoo ci ñooñu aywa léegi dama bëgg nag nga nga ñaan nga ñaanal ñu dama bëgg nga ñaanal ñu sëñ Bassirou na daa bëgg nga nga ñaanal ñu te jiital ko ci ñaan gi ci barke Serigne Fallou mook doo ak rakk yëpp barke Sëñ Fallou barke Sëñ Fallou barke Serigne Baara barke Sëñ Baara barke seen waajur Cheikh Ahmad seen waajur Cheikh Ahmadul Khadim sëñ Mohamed